أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبيه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu ñu tàmbalee ci tur yàlla tabaraka wa taala ñu ngi ñaanal suñu yonente muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéwal ko musal ko ginnaaw loolu ñu ngi jéem suñu kémtalaay kàttan jamono bu nekk àllarba bu nekk ci ngoon bu ñu jullee timis ba pare lenn ci mbokk yi nga xam ne am nañ jot ñu toog di fàttalante ci tomb bi nga xam ne moom mooy xisasul ambiya mooy ñu waxtaane yonent yi nga xam ne yàlla moo leen tànn yónni leen ci ñun lan moo tax ñu tànn tomb boobu mooy pour ñu xam yonent yi seen rôle seen taxawaay ana lan moo tax yàlla yónni leen bi yàlla sàkkee àdduna ba àdduna bi fi muy jeexee waxtu bu nekk jamono ju nekk yàlla tabaraka wa taala di tànn ay yonent di leen yónni ci kaw suuf lan moo waral lool borom bi tabaraka wa taala mi ngi ñuy nettali histoire yonent yi alayhimu salaam lu tax pour ñu jële ci kéemtaan mooy ibra ñu mën cee dégg man cee xam man cee jàngee borom bi ne nahnu naqussu alayka ahsana al qasas yow yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wassalaam yow jullit man yàlla tabaraka wa taala maa lay nettali ci alquran ngëm gi nettali bima awxayna ilayka haza alquran wa in kunta min qablihi la min alghafilin man yàlla tabaraka wa taala maa lay nettali maa lay wax wax yoo xam ne dootoo ko déggati feneen ndax njëriñ yi mu ëmb yiw yi mu boole ak njub gi nga xam ne denc na ko mu ne ko bima awxayna ilayka haza alquran loolu yëpp nag maa ngi la koy nettali ci alquranul karim waaye xam nga ne balaa alquran ñëw yow yonent balaa mu yàlla di la tànn ngay nekk yonent boobu déggoo woon dara ci mbirum diine borom bi ne ko nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqq man yàlla maa lay nettali xew-xewu yonent yi man yàlla maa la koy xabaar te ci dëgg rek laa la koy wax borom bi ne faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun da ngeen nettali nit ñi histoire yonent yi ndax ñu xalaat ci hasil ayat aaya yi ñu wax léegi muy ñetti aaya ci kaw dafa am lu muy joxoñ dafa am lu muy wax li muy wax ak li muy joxoñ nag lenn dong la mooy importance yonent yi alayhim salaam pour ñun ñi koy dégg ñu war a xam ne li ñuy dégg aw dundin la woo xam ne yàlla tabaraka wa taala dafa sàkk ci ñun pour ñu dundee loolu bokk na ci tax tey nit ñi jàdd mënuñoo dund diine parce que xamuñu yonent yi lan moo lan la gis yoon ci kaw suuf ndax alquran yàlla moo ko programmé pour nit ñi dund ko yàlla nettali yonent bi alayhi salaatu wasalaam yonent yi ci alquran pour lan pour yonent bi xelam mën a dal li yutabbita bihi nabii sallallahu alayhi wa sallam wal muminin min baadihi laallahum yatafakkaruun wa yataamaluun wa yaatabiruun bi hadihi alqisas yàlla tabaraka wa taala nettali na yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam ci alquran ay yonent yu baree baree baree bari pour lan pour xelam mën a dal mu xam ne du moom lañ njëkk a yónni du moom lañ mës a weddi yàlla yónni na ci lu ko jiitu ci ay yonent ñu weddi leen pour xelam mën a dal waaye ñi gëm yàlla tamit nga xam ne ñoom la leen yàlla di di yónni muhammad ñoom it ñu mun a xam ne am na ñeneen ñu fi nekkoon yàlla yónnee leen ay yonent ñu lànk yàlla duma leen waaye am na ñeneen ñu àndoon ak yonent yi nga ñaay la ñooñu daal di koy jël kon loolu ñun bu ñu ko déggee lan la ñu jural mooy bu ñu weddee yonent bi yàlla duma nu suba bu ñu ànd ak yonent bi ëllëg yàlla tabaraka wa taala defal ñu taw foofu kan lañu yàlla boole ci ñu àndal waaye ñu xalaat lan la ñuy xalaat lii yàlla doon wax yonente bi alayhi salaatu wasalaam te mooy ci qisasul ambiya histoire yonente yi ñu xalaat ci bu baax ñu daytalu ci ñu jël ci histoire yàlla nettali na yonente bi alayhi salaatu wasalaam ay yonente yoo xam ne ba leen yàlla yónnee dañoo ñëw fekk adduna bu doy waar fekk ay buur yu am doole waaye tarawul yonente yi dañoo ñëw taxaw ñeme am fit wax dëgg gi deltuñu ginnaaw benn yoon pour ñu tamit ñu xalaat loolu ñu xam ne ñu nit lan moon war mooy ñuy wax dëgg ak lu mu métti métti métti ñu wax dëgg ci kanamu ñi nga xam ne ñoo bañ a dégg dëgg parce que nit ñi bëgg ñu dégg dëgg nit ñi bëgg ñu dégg dëgg te dëgg mooy yàlla nee na yonent ne mais nit ñi bëgg ñu ko dégg léegi nag yàlla yónni na yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam yàlla wax ko ci alquran ne dëgg gi da nga ko war a wax lu mu métti métti ak lu la ci mën a fekk même booy dee ndax yónni woon naa ay yonent ñu wax dëgg gi am ñu ci duma am ñu ci rëy am ñu taxaw riposte ba keroog yàlla di leen di dimbali mbokk yi histoire yonent yi alayhi alayhim salaam alquran wax nañ ci lu bare bare bari ay yonent yoo xam ne yàlla bi ñuy nettali seen histoire daf ko tënk am na yeneen yonent yoo xam ne yàlla bi ñuy wax seen histoire daf ko yaatal yi nga jàng ci alquran yonent boo xam ne yàlla ngay tàmbalee waxturam ca bépp boppu saar ba ci saaru suuf yi yàllaa ngi wax yonentam yàllaa ngi nettali yonent boobu am na yonent boo xam ne da ngay dugg ci alxuraan fu ci ngay di gis ci histoire te dañ kaa tënk mais ñenn ñi yàlla dafa yaatal seen biir ci alxuraanu bari ñi nga xam ne yàlla nettali nañu leen ci alxuraanu karim muy ay yonent ak ñi yàlla yónni yàlla tudd seen tur ci alquran vingt cinq lañ ay ndaw yoo xam ne yàllaa leen tànn yónni leen ñaar fukki yonent ak juróom ñoo xam ne yàllaa leen tudd seen tur ci ay aaya yu bare bari ci alquran karim bokk na ci aaya bi di ñëw nii wa tilka hujjatuna aataynaha ibrahima ala qawmi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإليس كل من الصالحين وإسماعيل وإليس كل إلياس لول وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل وإليس ويونس wa luutan wa kullan faddalna ala alaalamin aaya bi lenn ci ay yonent yàlla tënk na fii seen tur wax ñu ñu wax ñu ne moom moo leen yónni mu ne ko ay yonent yoo xam ne man yàlla maa leen jox sama lay maa leen jox sama wax ku mel ne Ibrahim yëkkati woon naa ko ci kanamu ay nitam Ishaq yaqub ñi ñëpp jubal naa leen noor yàlla nee na maa ko yónni woon démb ci njabootam daawud suleymaan ayub yusuf muusa wa haarun ñi ñëpp man yàlla maa leen daan yónni leen ñoom ni ma leen fayee wa kazalika nujzil muhsinin noonu laay fayee ko rafetal gis nga bokk na ci importance di jàng alquran ak di ko firi yàlla saa yu la waxee benn aaya aay ba buy jeexal su fekkee ñu baax la wax mu fay leen danaa noonu ma faye woon ñooñu de soo baaxee ma fay la noonu waaye bu fekkee ay li mu duma la woon danaa noonu ma dume woon noonu soo jaaree fi ñu jaar ëllëg ma duma la te kenn du interprété si doon limee ñu baax ñi mu ne wa kazalika najzil muhsinin nii ma leen faye tey ba ñu baax ñoom ñu am lu baax ku jaar fii rek man yàlla tabaraka wa taala ma daal di jaar ak yow fi ma jaar ak ñu baax ñi mu ne wa zakariya wa yaxya wa isa wa ilyaasa kullu min asalihin yàlla xamal na ñii nii mu wax ñoom ñëpp dañoo baax lan moo tax ñu baax mooy bi leen yàlla yónnee jox leen programme dañoo nangu jël programme yi ñu dund ko mën a yàlla dañoo baax yàlla kum ne da ngaa baax ku baax nga waaye ku yàlla ne da ngaa bon kenn mënul fexe ba nga baax bu àdduna bi mu àndoon ne ku baax nga ku bon nga borom bi tabaraka wa taala mu ne wa ismail wa ilyasa wa yunus wa lutan wa kullan faddalna ala alalamin mu ne ñii ma leen wax nii ñoom ñëpp man yàlla maa leen yëkkati gënal leen ngëneel weesuwul àddina bi li ñuy baree baree baree bari yàlla lay tànn def la yonent ngëneel weesuwul loolu tey ñun loolu lu ñu koy déggee mooy ci sunu xeet wii fii nu nekk sunu réew mii tey ku borom réew mi tànn def la ministre gënal la la parce que dafaa yëkkati ci say mbokk yëkkati la ci biir dëkk bi kon nit ñëpp li ñuy bari bari bari ku yàlla tànn def ko yonent su la yàlla ne gënal naa la rek yow nit ñi war nañ xam ne yàlla gënal la mu ne yaqulu taala fi tibyaani sababu hada tafsil alkathir li qisas al anbiya fi al quran yàlla mi ngi leeralal sabab bi nga xam ne léeg-léeg mu jàpp benn benn histoire yonent yaatal ko leeral ko ci yonent bu mu yónni ci alquranu karim mu ne wa kullan naqussu alayka min anbai rusul ma nusabbitu bihi fuaadak wa jaaka fi hadihi alhaq wa mawizatan wa zikra lilmuminin kon léeg-léeg ma jàpp ab yonent leeral mbiram yaatal ko guddal ko faramfànce ko lu tax maa nu sabbitu bihi fuaadaka ngir ma dalal sa xel yow Muhammad nga mën a dëgër xam ne coow li lu mu bari bari pakk-pakk yi gàllankoor yi lu mu bari bari bari yow yaa nekk ci dëgg te yow yaay gañe war yàlla leeral na ko ay yonent yu bari yoo xam ne ci alquran yàlla day wax Muhammad xoolal ñii soo bëggee réussir sa mission xoolal yonent bi ay nitam ñoo ëppoon seen i doole ay nitam ñoo ëppoon seen i am-am ay nitam ñoo mënoon say nit ay nitam ñoo ëppoon say nit waaye moom day li ma ko yónni woon taxaw na ci ba mission bi daal di sotti kon day dalal xelu yonent bi alayhi salaatu wassalaam pour lan pour mu xam ne warul deltu ginnaaw warul xalaat warul jaaxle parce que yàlla tabaraka wa taala mi ngi ci wetam di ko jàppale borom bi tabaraka wa taala mu ne idan tasbit li fuaadi nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fi lxaq alladi uxtulifa fihi nnaas fi tibyaani li kasirin min alxalal attaarixi alladi warasnaahu wa warasahu nnaas yàlla di dalal xelu yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam ci yónni gi mu yónni yonent yi ci leeral dëgg bi nga xam ne nit ñi tey dañ ci am wuute ci ay manqué manqué tey da ngay dégg lu bare bari ci sunu waxuma sax ci àddina bi mais ci sunu réew yi rek léeg-léeg nga dégg ñu ne jibril ñëw na fi léeg-léeg nga romb ay photo ñu dessiné jibril léeg-léeg ñu wax wax yoo xam ne sëriñ diw wala diw kilifa diw jibril da doon wàcc ci moom loolu lu ko waral mooy ñàkk a jàng alquran ak ay yenn yoo xam ne yéen a ngi dégg ñu ne diw bokkul ci aadama lu ko waral mooy alquran bii moo leerul ci ñun alquran ku mu leer ci ñun dëgg yàlla gi ku mu leer ci ñun am na yeneen yoo xamante ne dootul ci dugg ci lan moo tax tey ñu mën a gëm ne Jibril dafa ñëw Sénégal ndax lan moo tax ñu gëm ne Jibril dafa doon ñëw ci ay nit ñoo xam ne du ñu ay yonent lu tax loolu lu tax ñu gëm ne ay nit ñoo am na nit ñoo xam ne ñoo gën a foor yonent yàlla Muhammad am na nit ñoo xam ne ñoo gën a foor yonent yi lu tax loolu mooy ñàkk a jàng alquran ak ñàkk di ko déglu kon loolu moo tax yàlla di nettali yonent yàlla Muhammad is ay histoire yonent pour am na gàkk-gàkk ay tilim tilim yu nit ñi def alquran ñëw daal di koy leeralaat ba mu leer lan ngay jàng fii yéen ñi jàng université lan lañ leen jàngal doomu aadama cosaanam lan la goro wala jàng leen loolu yéen ñëpp lan leen jàngal université doomu aadama goro la seen baay seen maam goro la imagineel alquran ñëw naan lu cosaanu doomu aadama lan la kon alquran dafa ñëw di leeral yu bari xoolal ñi nga xam ne wax nañ Ibrahima nangam la yàlla ñëw na di dëgg doomu adama cosaanam nangam la yàlla ne loolu amul lu nit ñi wax lu bëree bëri diw nangam alxuraan ne loolu amul am na ku mën ëllëg taxaw kanam yàlla poñe yàlla ne ko hee yàlla mu ne loolu amul alxuraan bi loolu moo tax mu ñëw pour dalal xel yonent bi pour ay manqué manqué ay tilim tilim ay pas-pas yu bon yu nit ñi façon dafa ne loolu dëgg la alxuraan ñëw daj ji lépp xamal yonent yàlla Muhammad dara du ci dëgg dara am loo ma tax ñu war di jàng histoire yonent yi alayhi salaam pour ñu xam ñu dem ku ñuy ku ñuy teg suñu tànk ndax yonent yàlla Muhammad alayhi salaam pour mu réussir yàlla loolu la ko waxoon kon alquran bi mu ñëw di leeral ay manqué manqué yu nga xam ne dañ koo doon ci suñuy bàyyi tey ñun dañ koo doon am na yoo xam ne dañ koo doon fii lañ ko fekk ci réew mi da ngay dégg tey nga ni benn waaye lu tax doo def nangam mu ne nii laa fekk sama ndey ak sama bàyyi di def benn misaal tey gis ku julli di wàcc loxo boo ko nee ni mu ne nii laa ko fekkee mu may ni problème nga dajeeg benn jigéen ni ko la teree muuru mu ne nii laa ko fekkee bu ma sonal ak bëri ay aada yoo xam ne dara baaxu ci yoo xam ne ñun fii ci biir dëkk bi di ko def ay kenn du ñaan xorom guddeeg kenn du du xalu guddeeg ku xëy suba da ngay sotti ndox sa buntu kër rek yéen moo gën a xam yooyu lu ko waral est-ce que ñàkk a jàng alquraan kay kon alquraan ñëw di leeral loolu fa jaa alquraan yu saxi haadihi al axta al taarixiya wa yuzhiru al xaq alquraan dafa ñëw di leeral pas-pas yu bon yu tilim yu taq yi nga xam ne nit ñi dañ koo def yi nga xam ne histoire sax bindu na ko am na tey soo gisee tubaab yi mun ñoo mun ñoo tuur lëndëm am na ci suñu histoire maam yi nga xam ne ci réew mi lañ nekkoon doon xeexal l'islam histoire daal di tubaab yi daal di ko bind bind bu bon a bon a bon moo tax nit ñi ñi jàng français mënuñoo wekk borom xam-xam yi diine yi fii Sénégal mënuñu leen a wekk lu tax parce que li ñu leen jàngal moo baaxul lan la leen jàngal ci Maba Jaxu Ba lan la leen jàngal ci Samori Touré lan la leen jàngal ci Lat Joor du ñooñu rek sax ak ñeneen ñi ñeneen lan la leen jàngal ci moom nangam lañ doon def baaxuñu ñoo tardé Afrique parce que daa dugg fii génn fii nga jàpp daal di koy gëm kan ma ko bind sa noonu kan ma ko bind ku la bëgg a yóbbu safara kon alquran loolu moo tax mu ñëw pour yàlla wax la ne ñii moom kenn nettaliwu la ne ni ñii nii lañ mel man mi maa la ko wax man yàlla bi nga xam ne maay góor bi moom asamaan su te man yàlla lu ma la wax mooy dëgg man maa la ko nettali jeex na sa xel day dal nga xam ne yow ci dëgg nga nekk lii ngay def dëgg la mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala borom bi tabaraka wa taala mu ne beneen bi tax ñu war a waxtaan qisasul anbiya mooy mu nekk maw'iza wa zikra lil mu'minin qala taala tilka rusul baddalna ba'duhum ala ba'd minhum man kallama allah wa rafa'a ba'duhum darajat wa atayna isa ibna maryama albayinat wa ayyadnahu bi ruhi alqudus walaw shaa allahu ma iqtatala alladhina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhum albayinat walakin ikhtalafu faminhum man aman wa minhum man kafar walaw shaa allahu ma iqtatalu walakin allaha yaf'alu ma yurid borom bi ne yonent bi nettali naa la yonent yi maa ngi la koy nettali pour lan mu nekk waar waaye mu nekk fàttali mu nekk waar ci yow pour nga war a waaru yow yonent bi yaag jullit ñi la topp ngeen yëg ne man yàlla yónni woon naa fi ay yonent yu la jiitu yow Muhammad ci ay nit ñoo xam ne ñu ngi fi woon ngeen jël ci ñoom waar soo jàngee seen histoire diggante nit yooyu ak yonent yooyu lan la mujjee mooy ñi ci gëmoon yonent yooyu réussir na ñi ci wedd yoon yonent yooyu alko na waaye mu nekk fàttali yàlla dañu ko wax pour minute ñu jël ci ak fàttaliku minute ñu jël ci ak fàttaliku nettali nekku rek lu ñuy nettali nii après nit ñi daal di koy dégg daal di reetaan wala nit ñi daal di koy dégg daal ne vraiment ah histoire bi am na importance daal di dem déedéet ñun dañ ci war a jël ak waa jël ci ak fàttaliku balaa ñi alagoon yonent yooyu daal ñuy alag loolu moo tax fàtte yi am importance bis bu nekk ñu leen di fàttali alquran ñaata yoon fa zik fa zakkir fa inna zikra tanfaul muminin deel fàttali nag fàttali day jëriñ jullit fa zakkir sa yazakkaru man yaxsha wa yatajannabuha al asqa deel fàttali ku ragal yàlla dana jëriñu ku weddi yàlla dana am fa zakkir in nafaati zikra sa yazakkaru man yaxsha fàttalil soo xamee ne fàttali dina jëriñ kon moo tax alquran ñëw di ñu fàttali lii yàlla tabaraka wa taala mu ne ci alquran yonent yooyu ngay dégg man yàlla maa leen gën a lënt faddalna baaduhum ala baad man yàlla yonent yooyu li ñu bari bari dama leen a gën a lënt am na ci ñoo xam ne man yàlla wax naa ak ñoom am na ci ñoo xam ne man yàlla maa leen maa yëkkati seen daraja isa maa ko joxoon lay wu leer maa ko dooleloon defal ko kattan jibril di ko jàppale lu muy def jibril di ko jàppale yàlla mu ne su ma neexoon man yàlla nit ñi ci kaw suuf du ñu reyante ginnaaw ba leen dëgg ba dëgg leeree ci ñoom ginnaaw ba ma leen indi leen lu lu leer waaye nag wuute nañ am na ci ñoom ñu gëm yàlla am na ci ñoom ñu wetti bu neexoon yàlla ne du ñu reyante waaye yàlla mooy def lu ko neex moo tax mu bàyyi leen noonu ku nekk nga nekk ci li la neex borom bi tabaraka wa taala mu ne haadihi alqisas allati jaat fi kitaabillahi azza wa jal ibra wa iza liman kaana lahu aqlun yatafakkaru bi mbokk yi histoire yi ñu nar a ñu nar a waxtaane ci fan yi di jëm suñu kanam ci àllarba bu nekk diggante timis ak gee histoire yi ñu nar a nettali muy histoire yonent yi kenn par kenn ci téere yàlla bi tabaraka wa taala yàlla koy jëlee yàlla duñ ko wax mu ne ibra dañ ca war a jël ak dégg dañ ca war a dégg waaye kan moo ci dégg mu ne li man kaala lahu aqlu ku am xel yatafakkaru bihi muy xalaat ci xel bi am na ñu am xel bi bare bari te seen xel duñ ko xalaat duñ ci xalaat loolu moo tax waa safara buñ duggee safara lan lañ wax law kunna nasma aw naqil ma kunna fi ashaabi sair ay ñun bu doon dégg ci suñu xel yi ñu ciy xalaat ñuy dégg ci suñuy nopp di xalaat ci suñuy xel kon tey duñ dugg safara borom bi tabaraka wa taala bi muy wax aaraaf di xas doomu aadama yi lan la wax lahum qulubun laa yafqahuuna biha wa lahum ayunun laa yubsiruuna biha wa lahum aadanun laa yasmacuuna biha ulaika kal an'am bal hum adal wa ulaika humul ghafilun nit ñi dama leen defal xel du ñu xalaat ma may leen nopp duñ jégg yàlla mu ne ñii ñoo xar yeeg béy yi ñoo yem nit lan la tere xarak béy mooy xel mi ko yàlla may mu ci xalaat su fekkee xel mi la yàlla may yow doo ci xalaat yaa xarak béy ak njaay àll parce que ñooñu amuñu xel yow da nga am xel kon dañu bëgg qisasul ambiya yi ñu nar a waxtaanee ñu ci xalaat yàlla mu ne laqad kaana lan moo tax ñu war ci xalaat mooy aaya bi laqad kaana fi qisasihim ibra li ulil albaab ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون borom bi nee na ngeen di xalaat ci histoire yonent yi di ci jël ak dégg yéen borom xel yi wallahi lu war la ñuy xalaat ci histoire yonent yi ku xalaat ci jaar-jaaru yonent yi alayhimu salaam ku xalaat ci gaa yi bëggoon gàllankooru jaar-jaaru yonent yi fan la ñu mujjee yonent yi fan la yàlla mujjee ñooñu borom pouvoir yooyu doon jaay yonent yooyu doole daan leen doon jaay ngand ngandlu di leen doon jaay alal di leen doon jaay mën-mën di leen jooma di leen doon jooma jaay ñun ñoo leen ëpp ay nit borom bi nee na fan la ñu mujjee loolu ñoom ñëpp yàlla tabaraka wa taala daaneel na leen ci kaw suuf yàlla yóbbu na leen ci bàmmeeli histoire yonent yi alayhim salaam ak programme yonent yi des di continuer kon inna fi dalika la ibra loolu kéemtaan moo ci nekk li ulil albaab ñeel borom xel yi yàlla mu ne maa kaana hadisan yuftara nekkul waxtaan bu ñu sos nekkul ay léeb nekkul lëppoon nekkul loo xam dañ la koy nettali te du dëgg déedéet walakin tasdiq alladi bayna yaday dafa ñëw di dëggal lépp lu nekk ci kanamam lépp loo xam ne wax nañ la ko nga xam ne yàlla tabaraka wa taala moo ko wax waaye dafa ñëw wa tafsila kullu shay wa hudan dafa ñëw di la leeralal li ngay dégg lu bare bari ci dëkk bi li ngay dégg ci biir kër yi di ko dégg yenn saa yi sax ñu ne borom xam-xam ko wax yàlla nee na alquran bi dafa ñëw histoire yonent yi dafa ñëw di la nettali li ciy dëgg ak lu ci dul dëgg ba nga mën a ràññee yow jullit bu bëgg a jaamu yàlla nga xam koy def seen taal sa taal su fekkoon ne ñun ñëpp dañuy déglu histoire yonent yi fekkoon ne ñun ñëpp dañuy déglu alquran kon kenn ci ñun du mës a teg tànkam pour pour dul noonu waaye lan moo tax tey ñu mën a sànku lan moo mën a lan moo tax tey ñu mën a sori yàlla lan moo tax tey mënuñoo jaamu yàlla tabaraka wa taala c'est parce que du ñu déglu yàlla tabaraka wa taala duñ ko déglu ku dul déglu yàlla nag doo xam yàlla li mu bëgg ku dul déglu yàlla doo xam yàlla li mu bëgg li tax nit ñi di daw waxtaanu diine xam ngeen lu tax dafa am benn xale bu jigéen bu ma wax jamono yee dégg naa am ngay film ma ne ko waaw mu ne enregistré ma film yi mais bul ci boole Xasan ma ne ko lu tax ma daf may tiitloo daf may tiitloo mooy maanaam daf may jaamuloo yàlla te man pareeguma pour instant bi pour ma jaamu yàlla lu tax ñun ñi bëgg ñoo déglu waxtaanu diine da nga dégg ñu ne non même waaraate xale yi góor yaa ngi nii waaraate ku ci yor rajo nga ni nii dégg ñu ne yàlla rek amay puus yóbbu sa sa onde ci beneen ci beneen ci beneen fréquence parce que bëggoo dégg yàlla nee na parce que bu déggee yàlla nee na te boo ko jëfewu rek am nga yàlla am na ci yow lañ ëllëg moo tax da nga bëgg nga ñu bàyyi leen ni ci biir rek ngay purux purux rek ñu bàyyi leen loolu ci biir nga continuer dem doo xam lii moo baax doo xam lii moo bon waaye loolu musiba naaru laay musiba weesuwul loolu ab julit muy daw yàlla nee na yonent ne su nekk ni bi ñu jullee timis ba pare gis nga mbokk bi annoncé na mais li ëpp ci ñun kenn nit ñun deful dara boo demoon fekk ñu bari toog ci kanamu télé di seetaan xamul la dañuy daw waaraate bi yàlla moo ko wax ci alquran mu ne gars yi dañuy daw waaraate comme fas bu gis gaynde fas bu gis gaynde du muy def ah ci ci feewu suuratul muzammil xaw ma mu dassir yàlla lan la wax ci feewu mu dassir wala muzammil la ah mu ne ka annahum ah ka annahum humurun mustanfiratun farrat min qaswara yàlla mu ne gars yi ñu ngi daw mel ne ay gëléem yu xonq yu gis gaynde gu xiif bu génn ci xuntam noonu la gars yi di dawee waaraat allahu akbar yàlla moo nu xam ka annahum humurun mustanfiratun farrat min qaswara gis nga de da ngeen di daw waaraate comme ay gëléem yu xonq cur yu gis gaynde gu toog ay weer lekk gu génn ci xutbam allahu akbar ko ku mu jàpp nooy rek yàlla nee na noonu ngeen noonu ngeen di dawee yàlla noonu ngeen may dawee bëgg leen dégg sama wax mais amul importance wiiri wiiri daal di jaar boo dawee daw daw doo rëcc yàlla nee na wallahu min waraihim muhit man yàlla maa leen war ndomb mu neen maa leen wa ma antum bi mu'jizina fil ard wala fis sama mu leen rëcc ci kaw asmaan mu leen rëcc ci suuf ñu ne jaamu yàlla noppalu comme mu noo rëcc leen dong mooy suñu politique mooy ñu jaamu yàlla te noppalu wiiri wiiri jaari ndaari borom bi tabaraka wa taala mu ne maa lay nettali alquran bi ba mu leer mu nekk njub waaye mu nekk yërmande ñeel ay nit ñi nga xam ne ragalal yaa ragal nañ yàlla al anbiya alayhim salaam yonent yi masaabihul huda humul uswa wal qudwa ulaika alladina hada allah fa bi hudahum iqtadi yonent yi alayhim salaam masaabihul huda ñooy lamp leer humul uswa ñooy royukaay bi wal qudwa ñoom lañ war a toppandoo yàlla mu ne ñii laa jubal ku bëgg a jub toppandoo leen yonent yàlla muhammad alayhi salaam yàlla ko ne da ngaa bëgg baax mu ne ko waaw mu ne ko ulaika alladina hada allah bi mu ko def ko ay tur jiw jiw jiw jiw ba ñu bari mu ne ko ñii laa jubal fa bi hudaahum iqtadi soo bëggee baax jaaral fañ jaaral kon yonent yi alayhim salaam ndax ñun ñii tey mën nañoo toppandoo ku gën a baax ibrahim inna ibrahima kaana umma ibrahima rek pas-pasam nation la buñ boole woon adduna bi yëpp asamaan ak suuf ibrahima moo ñu gën moo ñu gën a gëm yàlla kooku mën nañu am ku ko gën xoolal yuusuf ci ragal yàlla la xoolal isa xoolal Moussa ah allahu akbar xoolal Moussa ci iman bi di ko gars yi ne tey nga dee Firawna naa ngi ñëw mu ne kalla inna ma'i rabbi yow yàlla mu ne xool leen nii su ngeen xoolee nii seen pas-pas dëgër nii laa baaxal moo tax ma ne leen yéen ñii na ngeen roy ñii na ngeen leen toppandoo na ngeen leen xool na ngeen teg seen tànk bu ñuy tegoon seen tànk fa bi hudaahum iqtadi li jubaloon ñii jaaral ci loolu xeeñtul loolu pour nga jub ah tey benn waaye bu duggoon fii ci benn affaire ba réussir am xaalis xoolal ñi xale yi jaar ci gaal yi dem Espagne bu ñu téléphoné seen yeneen xarit yi lu ñu leen di wax nii laa def nii laa def ku xarit ba dem jaar foofu pour moom it dem rëcc bu doon keneen la aussi kuy jàng jaar fi jaar fi ba réussir woo ko kenn kooku boobu lay jaar bu doon kenn kuy jaay la di dem place sangam naan ko place sangam dafa am xaalis li nga fay jaar ba yegg suñ ko waxee ñun ñëpp ñu jëm ñu def dañuy jaar foofu yàlla dana yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñii laa baaxal ñii ñoo jaar ci sama yoon ba baax soo bëggee baax jaaral ko yonent yàlla Muhammad daal fay jaar moom it ñeneen ñi nga xam ne da leen dañoo ñëwoon ñëpp mu yar leen da leen jaaral foofu fu mujjee mooy ñun ñëpp dañoo baax Sénégal mun nañoo am ku génne ku mel ne Aboubacar mun ngeen am ku mel ne Aboubacar ci baax mun ngeen am ku mel ne Umar mun ngeen am ku mel ne Ousmane mun ngeen am ku mel ne Bilal mun ngeen am ku mel ne Ali mun ko am abadan lu coow li coow li bari bari mënuñu am lu mel nii ñii nag lan moo leen baaxaloon mooy yonent bi yonent bi lan moo ko baax yàlla ban programme la ko jox bu baax mooy qisasul anbiya da ko nettali ñii ne ko boo buggee baax meleen ni ñi kon yonent yi alayhim salaam mu ne ko ittabi haada sabil jaaral ci yoon wii yoon wii laa bëgg nga jaar ban yoon mu ne ko yoonu yonent yi alayhim salaam arsalahum allahu taala tatra min bidayati alxalq tataaba arrusul wal anbiya في حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن عدد الرسل زاد على 300 وعدد الأنبياء زاد على 124 ألف mu ne ko jaaral ci yoonu gaa yi yoo gaa yi nga xam ne jamono bu nekk damay yónni kenn muy ñëw depuis ma bindee asamaan ak suuf depuis ma wàccee aadama ci kaw suuf jamono bu nekk damay yónni ay yonent jamono bu nekk yonent yàlla muhammad alayhi salaatu salaam wax ci benn hadis mu ne limu ñi yonent yàlla yónni ñetti téeméer lañ ñi yàlla yónni mu ne ko ñetti téeméer lañ mu ne ko yonent yi nag ñi nga xam ne soloo naa leen ñooñu cent vingt quatre mille lañ téeméer ak lan ñaar fukk ak ñeent ñaar fukki junni ak ñeenti yonent téeméer ak ñaar fukki junni ak ñeenti yonent ñeenti junni yonent ah alf naaw kon xoolal cent vingt quatre mille cent vingt quatre mille yonent yàlla di leen yónni jamono bu nekk yàlla yónni mais loolu est-ce que loolu ku jàpp ne lii lu caaxaan la yàlla dina jël cent vingt quatre mille yonent de prophète di leen yónni ci kaw suuf yi ba pare mu ne ñu nit ñi jàpp ne ay caaxaan la ah ah mais non loolu ku ko dégg xam ne yàlla fawul fawul yàlla programme am la yor bëgg doomu aadama yi dund ko ci kaw suuf ku ko dund yàlla préparé nee na kaana fi bani israil kullama maata nabi qaama nabi yàlla tabaraka wa taala musta toog benn jamono rek suuf si wéet amul yonent saa yu yonent demee rek yonent ñëw kullama maata nabi qaama nabi maa yaxlu min al anbiya wa kaana ahyaanan fi zamanin wahid fi baladin wahid salaasa aw arba anbiya arsalahum allahu taala li inqaazi al bashariya nee na saa yu yonent demee rek yonent ñëw suuf si musul toog am benn wéet benn espace bu yonent ñëw lu tax nee na yenn saa yi sax mu doon am ci jamono benn yonent daa di benn dëkk yàlla yónnee fa ñaari yonent wala ñetti yonent pour rek nit ñi daal di jóg jàngee ci yaasin yàlla tabaaraka wa taala mu ne bi ma yónnee yonent nit ñi weddi ko lan laa def xanaa naa bi saalis ma daal di yónnee ñetteelu yonent rapport ñetteelu yonent saa yàlla yónnee yonent nee na yenn saa yi ñaari yonent ñëw ci benn dëkk di waaraate nit ñi weddi yàlla nee na ma yónni beneen mu nekk ñetti yonent ci benn place wala rek pour doomu aadama yu baax pour suuf si ba ñëwee nee na yonent yooyu yàllaa leen yónni tabaaraka wa taala pour ñu musal doomu aadama yi pour ñu mun leen a génn ci lëndëm bi ñu bëgg a dugg waaye yonent yooyu alayhimu salaam yàlla yónni leen pour ñu mën a yenu lor yi leen doomu aadama yi lor wala yonent am na yonent yu ñu rey am na yonent yu ñu dóor jàngeen histoire am na yonent yu ñu lakk ci safara am yonent yu ñu sànni ci teen ah am yonent yoo xamante ne dañ leen a rey rey rey si dañ leen a siyee ba ñu dee moo tax benn borom wax bu ñu ko nee àddina bi neexul mu ne kañ la àddina neex bi ñuy rey yonent yi la àddina bi neexoon mu ne àdduna musta neex àdduna nii la musa mel àdduna bi nii la musa mel yàlla tabaaraka wa taala yónni yonent nit ñi weddi ko yemuñ ci weddi ko waaye jàpp ko rek dinañ jàng histoire yi kenn kenn par kenn ngeen gis kenn ku ci nekk ci ñoom lan nga daj waaye loolu suñ ko yàlla di nettali te terewul li yàlla bëggoon ca jamono yooyu bu ñu reyee yonent du wàññi dara yàlla di yónniwaat keneen rek mu ñëw doxal programme bi moo tax léeg-léeg ci ñi ñi ñi ñi ñi remplacer yonent yi ñu bëgg a gàdduwaat woote bi léeg-léeg ñu jàpp ci benn kilifa rey ci àddina bi su ko defee lan la war a jural ñi dégg loolu ñi ko gis ñi ko fekkee mooy àdduna nii la ndax yàlla yónni woon na ay yonent ñu rey yonent ya kon kilifa bu wuute yonant boobu ci wooteem ñu rey la loolu du dara wala fi dañ naan illéer bu demee ca waar wa wàcc na wàcc na kon yàlla tabaraka wa taala nee na yàlla yónni na yonent yooyu ñu yenu lor yi tabaraka wa taala ñu yenu ay coono parce que lan coono yi mooy lan mooy defar nit nit nit ku ko bëgg a defar foog nga sonn tabax bii ku ko bëgg a tabax yenn saa yi nga romb ay maçon ñu yéeg ci ay étage bëgg lan bëgg a defar waaye jamono ba ñuy toj ak jamono ba ñuy dóor mën nañu tere ay nit nelaw mën nañu yàqal ay nit seen liggéey waaye la ñuy tabax bu paree lan la ci nit ñi gis mooy ku gis tabax bi bëgg ko mooy lan bu fekkee nag tabax doomu aadama tabax mu néeg la nit di sonn kii tabax kii tabax néeg la lan moo tax ñu war a sonn pour defar doomu aadama lu tax yàlla yónni lu tolloog cent vingt quatre mille yonent ci kaw suuf pour doomu aadama defaru parce que doomu aadama bu defarul musiba day am ci kaw suuf loolu moo tax doomu aadama bu juddoo du dox lu juddu dox ba mu des doomu aadama doomu ñay ak doomu nit lu ëpp doomu ñay waaye ñay bu juddoo léegi dox wala doomu nit lu mu toll su juddoo du dox mu ah dina toog ay weer ay at ci benn place du yëngu lu tax du bouger lu dul di yëngal tànk di yëngal loxo yàlla dafa bëgg ñu defar ko balaa muy mën a dox parce que bu ñu ko defaru bu doxee rek jox def musiba mais ñu dégg ñu ko dañuy am ay doom bàyyi leen duñ leen yar duñ leen defar duñ leen former duñ leen jàngal diine même bu ñuy julli si jàkk sax duñ leen indaale ak néew ci ñu ñuy yóbbu seen doom jàkk wala wala xale ñoom bokk ñu ñu war a julli jàkk ji ana mag ñi ko sosoon tey dem nañ ñu ci ëpp su fekkoon ne seen doom ya formé wuñ leen woon tey ndax seen doom yi dinañ mën a ñëw doon naat jàkk ji déedéet loolu mooy wax ji kon loolu moo tax loo nekk ci lu baax indi ci sa doom boo lëgëg si biir bu la gisutee indi boppam dem fa nga doon dem mbokk yi yàlla tabaraka wa taala mu ngi nettali yonent bi alayhi salaam wa wujuduhum xaq wa xaajatun lil bashariya wallahu subhanahu wa taala ma kaana li yatruka annaas duna nazir xata ma yaxtaju alayhim ahad yowm alqiyama inna kunna an hada gafilin yàlla tabaraka wa taala moo ñu wax ne yonent yi man yàlla maa leen yónni woon te li ma leen joxoon dëgg la man yàlla maa leen ko wax du ma leen doon bàyyi yéen doomu aadama yi te joxuma leen benn ndaw kon su ma fi yónniwul woon yonent ëllëg da ngeen di am lay bu yàlla yónniwul woon yonent benn yonent ñëw kon nit ñi ëllëg ñu taxaw ci kanam yàlla yàlla mu ne lu taxoon jaamoo leen ma nit ñi li ñuy wax ñu ne ah yàlla dañ laa waroon jaamoo yàlla mu ne waaw mu ñu ne ah kan nga yónni woon pour nañu ko yàlla mu ne ah waaw waaw waaw wax ngeen dëgg de yónni mu woon kenn non kon day yomb yàlla tabaaraka wa taala ñun du ñu am ëllëg lay yàlla nee na jaamu leen ma su nit ñi ne waaw yàlla dañ laa waroon jaamu mu ne waaw ko yónni woon mu ne yónni woon naa ci yéen Muhammad yeneen xeet bi mu ne yónni woon naa diw ak diw lay ni yeex na ah Muhammad bu mu ñëwee yàlla loo ko joxoon mu ne joxoon naa ko téere bu tur alquran ndax jàngoon ngeen ko ba ngeen xam ne maa leen yónni tey kenn ku nekk ñun boo amoon mbokk mu nekk étranger yónnee la leer lettre bi anglais lañ ko bindee wala français te yow jàngoo français nooy def da nga koy takk da ngay takk da nga koy da ngay lem téere bi da ngay lem ci uude bi lem ko ba mu naaj nga ëw ko takk ñu leen da nga koy def ci kaas jàmb naan da ngay def ci kaas jàmb naan ñun loolu lañ def yàlla yónnee ñu téere ñu jël téere bi yëpp ci uude yi di ko ëw yàlla yónnee ñu téere ñu jël téere bi jàmb di naan te yow bu la yónnee woon lettre léegi looy def lettre bi da nga koy tijj nga fekk français la nga ni ah koñ bi ku fi jàng tubaab ñu ne la diw nga ñëw salaamaaleykum ne waaleykum salaam nga ne ko dama laa soxla mu ne waaw bismillah ci mbedd bi nga ne ko déet nan dem sa biir saal mu ne la noonu suñu kër dafa am nit nga ne ko kaay sama kër gis nga yéen ñaar damm ci biir nga ni tekk muy lëy ba mu jeex tekk mu commencé ah diw de moo la bind lettre surtout nag yàlla moom bu ne benn xaar kii boo xam ne yaakaar nga ci dara kooku moom boo koy déglu attentivement wala waa ji ne la ah yónnee na la xaalis de mais am na numéro bu ci nekk il faut nga ci déglu pour ñu jox la numéro bi boo koy bind wër la yàlla doo jub dañ leen dañ leen bàyyi xel suñu bopp mbokk bi kon maa ngi ñu arrêté fii insha allah ba àlla ba bii di ñëw yàlla ñu yàlla def أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم mbokk yi tey mooy sunu ñaareelu leçon ci histoire yonent yi alayhimu salaatu wasalaam ñooñu nga xam ne yàlla moo leen tànn yónni leen ci kaw suuf si pour ñu war a orienter jaamu yàlla yi pour ñu xam fu ñuy teg sunu tànk dars bi passé waxoon nañ leen yàlla tabaraka wa taala yónni na cent vingt quatre mille prophètes ci kaw suuf lu toll noonu ci ay lim ci ay yonent yàlla tànn leen yónni leen ci kaw suuf loolu du hasard loolu am na lu mu war a jural doomu aadama yi am na lu mu war a jural xeet yi tolloon nañ ci lan moo tax yàlla tabaraka wa taala yónni leen ñoom yonent yi alayhimu salaatu wa salaam
yàlla mu ne wa ma min umma illa xala fiha nazir amul xeet wu nekk lu yàlla tabaraka wa taala yónni na fa ndaw xeet wu mën a doon bi yàlla bindee suuf si wàcce fi doomu aadama yi fu ay nit mës a nekk rek yàlla tànn na yonent yónnee fa borom bi mu ne walaqad baasna fi kulli ummatin rasul xeet wu nekk rek yónnee naa leen ndaw loolu kon am na lu muy wone mooy ñu xam ne yàlla tabaraka wa taala dafa am lu mu bëgg kon du hasard rek ñu ñëw ci kaw suuf toog fi nekk ci lu ñu neex nekk suñu coobare déedéet mooy suuf si li tax yàlla wàccee fi jaam ñi dafa am lu tax kon histoire yonente yi hadihi al qisas ayuha al ixwa tatamayaz bi annaha qisas waaqiiya laysa fi nasji al xayaal histoire yonente yi alayhim salaam dafa am ay importance yu mu ëmb yu baree baree bari ci njëkk mooy ñu xam ne ndeke yonent yi ñu dëggu lañ yàlla tabaraka wa taala moom moo leen yónni waaye nekkul ne ñoom liñ leen di wax ci ñoom ay léeboon la ak lëppoon suñ lay wax histoire yonent yi li nga war a gëm mooy lii lii du léebu sàmmage laa ji du léeb waaye dafa dëggu lu am la ndax yàlla moo ko wax ci alquran te yàlla du waxantu beneen bi mooy laysat xayaaliya wa innama hiya qisasun hadasat fi ardil waaqiiya dafa nekk histoire boo xam ne nekk lu ñuy janeer nii rek bind ko xam nga tey borom xam-xam yi am na ñoo xam ne dañuy toog seeni néeg rek xalaat bind xëy suba daal di bind benn roman nga jënd ko di ko liir ay at mu neex la nekk sa biir xol fekk dara amu ci ay gént la benn wala mu nekk rek ay xalaat yu benn waay bind loolu nag nekkul histoire yonent yi alayhi salaam histoire yonent yi moom ku feebarul xam ne dëgg la parce que yàlla moo ko wax kenn kenn ku nekk yàlla moo la jàpp wax sa tur ci alxuraan wax moo la yónni woon ci place sangam yenn saa yi nga fekk fa buur yenn saa yi nga ñàkk faa fekk buur nga fekk fa ay nit yoo xam ne nit yu doy waar la waaye l'essentiel que yàlla moo la yónni kon nekkul rek lu ñuy xalaat nii imaginer ko daan ne lii nangam déedéet lu am la mais dafa am ci suuf si ñu doon dund wa aashatha albasariya fi fatarati hayatiha almuxtalifa nit ñi daal di koy dund ci seen jamono ak jamono yi ni mu wuutee jamono aadam nuróowul ak jamono nuux jamono nuux nuróowul ak jamono ibrahim jamono ibrahim nuróowul ak jamono muusa jamono muusa nuróowul ak jamono isa jamono isa nuróowul ak jamono muhammad jamono bu ci nekk la amoon ci déviation yàlla day xool yonent bu ñëwee mu wax ci loolu misaal yonent yàlla muhammad li mu doon woote mu róowul ak li isaa doon woote li isaa doon woote li mu fekk ci ndëngte mu róowul ak li ibrahima fekke li ibrahima nekke woon fekk ay ay nit nekk ci mu róowul ak ñeneen ñi maanaam ñenn ñu nekk rek ak lañ doon woote yàlla daal di tànn ab yonent yonent bi dem waxtaan ak ñoom ca loolu ñoom ci ndëngati googu ñu nekkoon kon mbokk yi qisasul anbiya tatamayyaz bi annaha qisas zaatu ibra laysa qisasu li taraf wa tasalli wa innama mamlu'a bil qisas allati tahmilu al maani wal ibad li ajli an nasira tahta allazi xalaqna histoire yonent yi alayhim salaam dafa nekk histoire boo xam ne kéemtaan lañ ci war a jële dañ cee war a jële ak dégg lu tax yàlla moo tànn ak yonent yónni leen yonent yi ñëw woote waaraate ñi leen déggoon ñi leen nanguloon bañ leen déggloo bi ñu dee dañoo dem àjjana ñi leen lànkal ba ñu dee dañoo dem safara kon loolu dafa war a leer kon ñun lan lañ ciy jële mooy yàlla tabaraka wa taala yonent bi mu ñu bi mu ñu yónnee muy muhammad suñ ko déggalee ànd ak moom ci ni ko yàlla yónni woon bu ñu faatoo yàlla fay suñu lànkee bañ a ànd ak moom bu ñu dee yàlla dumanu te kenn du àtti loolu la ñu war a jële ci histoire yonent yi alayhim salaam beneen bi mooy histoire yi nekkul luñ ñuy nettali rek mu nekk luy dalal suñu xel wala mu nekk histoire yoo xam ne comme théâtre toog di di perdre temps non comme toog bi toog fi ci jàkk ji di waxtaan ci lii nekkul lu perdre temps de maa lii dañ ci war a jële njëriñ ku toog fi di ko dégg ba fa muy jeexee da nga ci war a jële njëriñ soo ci jëlewul njëriñ rek naa toog fi ma déglu ñi ñii li ñuy wax ni naa toog ma après ma ma passé temps non boo ko defee fit benn da nga yàq sa waxtu ñaar du jëriñ maanaam dañu war a déglu lii ñu xam waxu yàlla la tabaraka wa taala yàlla moo ko wax yonent yi yàlla moo yónni ay yonentam ci kaw suuf yonent ñoo am ñu leen nangul ñooñu fan lañ mujjee ak yàlla am ñu leen bañal fan lañu mujjee ak yàlla maanaam loolu la ñu xisaru anbiya di jëriñ ndax histoire yi dañoo fees ay maana histoire yonent yi dañoo fees ay maana fees ay njëriñ fees ay kéemtaan yu ci am yoo xam ne yàlla dong moo la ko mën a nettali ñu xam ne li dëgg la xoolal ku toll ni Moussa jël yàq dóor ko ci géej géej xottee ko maa loolu bu fekkoon ne du yàllaa ko wax fan lañ ko war a gëmee ñun dugal loxoom ci poqataanam génn loxo bi wertaal mel moo gën a leer lumière ah mu jàkkaarloo buur bu toll ne Firawna nga xam ne dafa gouverner woon àdduna dem ba ëppal boppam nit ne maay yàlla benn waay joo xam ne waaju ndaw waaju yemamaay yàlla yónni ko mu ñëw daaneel waajoo yi doon wax maa yàlla loolu du lu ndaw bopp yi loolu lu rëy la ci kanam yàlla xool Ibrahim ñu sànni ko ci safara safara si di tàkk di boy yàlla ne safara si bul ko lakk Yusuf ñu sànni ko ci teen waaw loolu bu ñu ko yàlla di nettali ñu war a jàpp fi passe-temps la dañuy nax suñu bopp bu ñu jàppee ne passe-temps mu ñu fi indi kon xamuñu lan moo tax ñuy def qisasul anbiya inna fi zalika la ibra yàlla deneen histoire yi ma leen di nettali ay kéemtaan ngeen ci war a jële mais da ngeen ci war a jàng da ngeen ci war a déggee mais waru leen ñëw rek daal koy dégg dem ne vraiment waxtaan bi ma déggee tey neex na déedéet soo fekkee loolu kese la amul importance mbokk yi qisatul anbiya dafa ëmb ay maana ak ay ibar li ajli an nasira taxta allazi xuliqna suñ dégloo histoire yi day tax ñu dox jaar fi yàlla bëgg ndax dafay leer ci ñun ne ku jaar fi yàlla bëgg yàlla fay la ëllëg ku lànk bañ a jaar fu yàlla bëgg ak noo ma toll yàlla fudd la parce que yàlla du koo xam ne nit day ñëw di wàññaar loxoom yàlla du ko chaque jour ma wax ko dafa am ay histoire ci alquran daf ñu war a jural njëriñ mbokk yi ñu jàngeen ñu jàngeen histoire firawn firawn kan moo ko gën a bon ci kaw suuf bi àddina bi commencé ba léegi déggu leen kuy dox ñu ne kii turandoo firawn la wala loolu am na Sénégal turandoo firawn mos naa man de fekk naa ngénte yu bare bare waaye mosul ko wax dégg ñu ne doom ji Firawna lañ ko tudde bu ngeen ko fekkee yéen ngeen wax lu firaam lu tax mais mbonam mais ana jabaram jabaram ngi àjjana jàngeen yàlla naan mu naan rabbit ni lii indaka baytan fil janna yàlla benn château laa bëgg nga tabaxal ma xoolal kooku ni mu bonee jabaram nekk aljanna mais jàngeen histoire nu nu ndax am na Sénégal ko gën a baax ñaar turandoo la fi am non ñaar turandoo la am Sénégal mun ngeen ko compter mun leen ko compter ndax turandoo yi ni ñu bare waaye xoolal jabaram anam mi ngi safara kon léegi lan lañu war a dégg ci loolu kon yàlla xamul jëkkër ju baax déedéet yàlla xamul jabar ju baax yàlla xamul kilifa gu baax xam nga yàlla lu mu xam nit ku baax damaa baax kon sama papa dafa baax man lu ma neex ma def yàlla xamul loolu ñun kilifa gi ñu àndal dafa baax ñun suñu baaxul baax na déedéet yàlla xamul loolu man sama papa ku baax la su ma neexee ma bañ a baax yàlla xamul loolu man sama jëkkër dafa baax su ma neexee ma bañ a baax yàlla xamul loolu xam nga yàlla lu mu wax nga baax alxayru laa yanfau illa li failihi wa dur wa charru laa yadurru illa li failihi fafalu lxayrat fastabiqu lxayrat aynama takunu yaati bikum allahu jamia yaa neen lu baax lu jëriñ lu du ki ko def sa baax bu baaxee baaxoo amul njëriñ nuuxa ngi ni baax doomam baaxul mu ngi safara nuuxa ngi ni baax jabaram baaxul mi ngi safara luuta ngi ni baax jabaram baaxul mi ngi safara firawna ngi ni bon moo gën a yées ci adduna bi ginnaaw iblis mais jabaram ngi àjjana kon yàlla bi ñu nettali rek histoire yi ñu toog nii di ko dégg dafa ne nangam nangam déedéet yàlla daf koy wax pour ñun ñu dégg ci parce que suñu jamono bi loolu la laaj beneen bi mooy mbokk yi qisasul anbiya indama nata'ammal fiha sanajid annaha mixwaru taarix albashari yaduuru xawla al ambiya suñuy nettali histoire yonent yi dinañ gis ne histoire yonent yi moom moo ëmb dund doomu aadama yi lu tax mu ëmb dund doomu aadama yi mooy bi yàlla tànnee bindee adduna bi ba tey adduna bi musta toog jamono bu fi yonent ñëw adduna bi musta toog jamono bu yàlla yónniwul yonent mu ñëw waar waa adduna mu ñëw fàttali waa adduna kon adduna bi dund nit ñi dafa ànd ak dund histoire yonent yi ndax jamono bu nekk yàlla day tànn ab yonent yónni ko mbokk yi balaa yonent yi di ñëw am nay buur yu fi nekkoon am nay njiit yu jiite woon ay armée yu fi doon ñëw ñooñu am nañ ay jeexintal ci société bi ndax benn buur danaan ñëw rek daan ne fii ku fi wax nangam wala ku fi def nangam ma rey yàlla yónni yonent yonent boobu ñëw jàkkaarloo buur bi ba daal di ko fiy jëlee loolu bu ngeen jàngee histoire jàng alquran jàng qisasul anbiya di ngeen gis ne yonent yi alayhim salaam genn wàllu yonent yëpp dañoo jàkkaarloog ay buur yoo xam ne kenn attanu leen woon ci seen jamono waaye ñu jàng ci ne yonent yooyu buur yooyu ñu doon xeexal seen noon yooyu ñu doon xeexal ba tey fii ñu toll ñi noonu woon yonent yi ñoo noonu islam ba tey ñi noonu woon aadama noonu nuux noonu ibrahim noonu Moussa noonu Isa ba tey boo jàngee histoire di nga gis alquran di la wax ne ñoo ñoo noonu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon loolu moo tax jàng histoire yonent yi baax mu ñuy fàttali bu baax ne far ak yàlla rek moo am importance nit lu mu ñàkk ñàkk doole loolu jaru xool nit lu mu ñàkk ñàkk alal loolu jaru xool nit leen dong lay ñàkk yëpp ne ñàkk na mooy mu ñàkk yàlla waaye boo ànd ak yàlla lu waaye am puissance am puissance da nga koy daaneel bu fekkee yàlla bi dëgg la ci yow ñaareel mooy ànd ak yàlla tamit xeex ak buur buur bi daal lay gañ a rey la tekkiwul ne tekkiwul ne yàlla amul de tekkiwul loolu ñaata yonent lañ rey ñaata yonent lañ dàq génne leen seen dëgg ñaata yonent ñoo ñëw woote suba ba ngoon kenn faalewu leen loolu war a yenn saa yi ngay nga nekk ci yenn place yu mel nii di waaraate benn waaye ne bon jàkka ji de ñeenti ni sama nekk bu fekkoon ne dëgg la kon jàkka ji day fees non non du loolu yent yàlla noonu ñaataat la wate dinañ ñëw ci histoire am dañu xam lu ko gëm yent bi salaa salaam nee na yowmal xiyaam dañuy dekki yowmal xiyaam da ngay gis yonent boo xam ne day ñëw ndeysaan du ànd ak kenn moom ñëw na ci kaw suuf woote ba dee kenn topp est ce que dafa nekk ne li mu doon wax du dëgg ah non lees nañ foofu li mu doon wax mooy dëgg waaye nit ñi ñoom ñoo demee noonu nit ñi ñooy ñooy bañ chaque jour jamono ju nekk di dégg yàlla nee na am na ñoo xam ne yàlla nee na dafa diis ci ñoom waxoon naa leen ko darse bii passé yàlla mu ne bu ñu leen di waar ah yaa ngeen ko ci suratu mudassir fin bi wala muzammil buñu leen di fàttali ñuy dégg waaraate dañuy daw ka annahum humurum mustanfaratun farrat min faswara yàlla moo ñu ko wax su doon du yàlla moo ko wax rek su ko nit waxoon rek ñu ne kii day tooñ waaye yàlla moo ko yàlla moo ne nit ñi am ñoo xam ne bëgguñoo dégg bëgguñoo dégg sama wax mbokk yi histoire yonent yi alayhi salaam def ñuy wax ne mooy dëgg gi nga xam ne moom la yàlla wàcce pour doomu aadama yi mën a baax pour ñu xam ne munuñoo dund diine munuñoo xam alquran bu ñu xamul qisasul anbiya munuñu munuñu dégg alquran alquran bi yàlla jox ñu mënuñu ko dégg benn yoon fekk xamuñu histoire yonent yi alayhim salaatu wasalaam ndax biir alquran li ci fees lépp lan la histoire yonent yi alayhim salaatu wasalaam mu ne bëre bi ngeen daan fekk diggante dëgg ak fen di bëre nee na bëre boobu moo am ba tey te bëre boobu mooy continuer ba yàlla di di la di lem asamaan ak suuf bëre bi fi amoon diggante yonent yi ak noonu yonent yi moo continuer ba tey jii waaw assira allazi yajri fi dunya aynama huwa siraun bayna alhaq wal batil siraun bayna al anbiya wa bayna atba wa bayna a'da'i al anbiya bëre diggante caaxaan ak dëgg moo fi sax moo fi musa nekk mooy bëre bi amoon diggante yonent yi ak ñi toppoon yonent yi ak diggante yonent yi ak noonu yonent yi alayhimu salaam kon mënuñoo dégg qisasul anbiya lu dul ñu dégg alquran ñaata aaya ñaata aaya ñooy répété wu di wax ci histoire yonent yi alquran sax ci boppam da ngay fekk ay saar yoo xam ne yàlla moo ko tuddee ay yonent ñaata ci alquran ngeen dégg alis ka amul surat ibrahim am na Moussa ñaata yoon la ko yàlla wax ci alquran Isa ah Yunus Yusuf kon da ngay fekk histoire yonent yi ci alquran waaye nga fekk seen tur kon ñaata aaya mooy ñëw di répété wu ci seen i mbir su ñu dégg alquran foog ñu xam histoire yonent yi alayhi salaatu wassalaam mbokk yi beneen bi mooy histoire yonent yi alayhim salaam daf ñu jàngal pas-pas bi gën a baax pas-pas te mooy lan mooy am tawxid ndax yonent yëpp tawxid la ñu bi woon amul yonent bu ñëw mës a sukkandiku ci leneen lu dul yàlla amul xam nga ñun tey kenn ñun mën na sukkandiku ci papa wala mu sukkandiku ci kilifa yonent yi nag kan lañ sukkandikoon xool leen Moussa xool leen Ibrahima Mouhamed alayhi salaatu salaam pour yàlla wax ko doo sukkandiku ci kenn benn borom xam bu tudd kis ki day wax ne Mouhamed yaa dafa teel a rey papaam pour su màggee du wax abi abi lu muy wax rabbi rabbi du wax abi abi sama papa sama papa waaye lu muy wax sama borom sama borom. borom xam-xam yi nee nañ bi mu amee ñaari weer ci biiru yaayam la papaam gaañu après ñaata at yaayam gaañu ñaata at yaayam gaañu. ah six ans yaayam gaañu ki ko yoroon Abdul Mutalib mu am huit ans kooku gaañu gis nga fu mu wéeru wéeru ci yàlla tabaraka wa taala pour lii lan yàlla day defar pas-pasam pour bu mu am foo xamante ne dafay delluwaat di làqatu pour pour di yaakaar ne suñ ko néewalee doole am na fu mu wéeru loolu moo tax histoire yonent yi alayhimu salaam daf ñuy jàngal pas-pas bi gën a rëy lu nit rëy rëy rëy sa kanam lu doomu aadama am doole lu doomu aadama am alal yow warulaa jaaxal maa sax su da ngay dégg ñu naan inna maa yi rabbi yàlla mi ngi ànd ak ma inna maa yi rabbi Moussa loolu la waxoon kalla inna maa yi rabbi allazina qaala lahum nnaas inna nnaasa qad jama'u lakum faxsabum lan la ñu wax hasbuna allahu wa ni'mal wakil ñun yàlla doy na gis nga yonent yàlla Muhammad loolu la waxoon keroog ca xaaru Hira lu mu wax saanis nay ni hima fil xaar lan la wax iz yaqulu li saahibihi la tahzan inna allaha maana kon loolu ñu qisasul anbiya di jàngal mooy ñu war a am pas-pas bu dëgër boo xam ne lenn mënuñu delloo ginnaaw lu dul yàlla tabaraka wa taala beneen bi dinañ ko jëlee ci qisasul anbiya mooy lan comme ñun ay wootekat lañ xam ne foog ñu am ñu ñuy roy ci ni ñuy woote wala wala dañuy làmbatu suñu woote dara taxul te lu dul wootekat yi échec lu dul amuñu ay royukaay ñun suñuy suñuy royukaay ci woote bii ñuy woote mooy yonent yi alayhim salaam nahnu nuridu an nakuna du'atun lillahi azza wa jal na'muru bil ma'ruf wa nanha 'anil munkar ah dañoo bëgg a nekk ay wootekat ci yoon yàlla tabaraka wa taala ñuy digle lu baax di tere lu bon loolu kat moo ci war a nekk suñu royukaay yonent yi yàlla yónni woon ndax ñoom ñoo ñëwoon ci kaw suuf di woo ñi fi nekk façon système bu nekk woote nañ système bu nekk yonent yi laal nañ loo xalaat waaye terewul am na ñoo xam ne bi ñu wootee topp nañ leen am na ñoo xam ne bi ñu wootee nit ñi dañoo lànk ba ñu leen a topp lu ci jële kon man su ma waxee ñu dégg alhamdulilahi rabbil alamin su ma waxee ñu lànk alhamdulilahi rabbil alamin man pertuma l'essentiel que li ma war a wax wax naa ko seet naa ni ko yonent yi waxee ma waxee ko noonu li ma war a def def naa ko jeex na pare yonent bi yàlla ko noonu lasta alayhim bi mustaytir waroo forcer kenn sant ñu la nga forcer nit ñi de dañuy gëm yàlla ah waaw suñ jàngee histoire yonent yi kon ñun ñi woote duñu sonn waaye ñu xam ne ñun ay wootekat lañ waaye dañoo war a am ay royukaay ci woote bi beneen bi ñu xam ne du ñun ñoo njëkk a nekk ay wootekat wootekat yi njëkk yi mooy yonent yi ku nekk bu mu ñëwee lu muy wax yonent bu yàlla mosa yónni boo ñëwee lay wax yaa qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin gayr jaamu leen yàlla amu leen keneen ku dul yàlla ci kaw suuf yonent bu musa ñëw rek baat yi wax nga ko beneen bi mooy mbokk yi munuñoo jaar ci yoonu yàlla tabaraka wa taala wa hatta nastati an nasir ala manhaji sahih la budda lana min uswa wa qudwa pour ñu jaar ci yoon bu baax wi mooy yoonu yonent yi il faut ñu am royukaay il faut ñu am ñu ñuy tette il faut ñu am ñu ñuy jàpp suñu loxo naan ñu ni ngeen di jaar ñooñu ñoo yonent yi la moo tax saxaaba yi baax saxaabatul kiram yonent bi ñaata saxaaba la amoon cent vingt quatre mille saxaaba ñëpp a baax amu ci ku jaar jamono ñëpp góor ak jigéen ñëpp a baax kenn amu ci sax kuñ naan kii day wax dëgg yàlla moom daa meloon déedéet ñoom ñëpp a baax lu tax c'est parce que ki leen doon wommat ki leen doon jàngal moo mat ki leen doon jàngal moo baax mooy jàngalekat bi dàq jàngale ki leen doon yar mooy yarkat bi dàq yare te ci jamonoom mi ngi woon ak ay xale mi ngi woon ak ay mag mi ngi woon ak ay góor mi ngi woon ak ay jigéen mais ñëpp la yar ñëpp la yar góor ak jigéen mag ak ndaw yar leen ci seen pas-pas ba mu dëgër ba ragatul lu dul yàlla mu yar leen ñu am xam-xam mu yar leen ñuy liggéey mu yar leen ñu jàng waaye mu yar leen ñu am teggin dara bàyyi côté yëpp léeg-léeg ñun nga gis koo xam ne fii dañ koo jàngal moom xam-xam mais amul yar léeg-léeg nga gis ko fii koo xam ne koo xam dañ koo yar mais jàngaluñ ko léeg-léeg nga gis koo xam ne alal lañ ko utloo yeneen i raw wala yonent bi moom ñu doon jàngal lépp la leen jox ñu amandoo lépp dañoo am yar am xam-xam jàng am alal mu jàngal leen liggéey ah jàngal na leen ne an al amala ibada liggéey jaamu yàlla la mu jàngal leen ne jaamu yàlla julli yi koor yi jaamu yàlla la mu jàngal leen sax pour xam-xam jaamu yàlla la daaw dara raw leen lépp la jam côté yëpp foo dem fekk saxaaba ci kiram mais loolu lan moo tax mooy yonent bi moo nekkoon seen royukaay ñu koy xool guddi ak bëccëg kon ñun tamit foog ñu am xudwa waaye foog ñu am uswa ci loolu wana siiru ñu dox ala manhajihim ñu dox jaar ci seen yoon woowu nga xam ne ñoom foofu lañ jaaroon mbokk yi pour ñu dox ci yoon wér la budda ñu roy yonent yooyu alayhim salaam ñu daal di jaar ci yoon yooyu yoon yooyu nag bi ci gën a rëy mooy yoonu yonent bi alayhi salaatu wasalaam wa a'zamu almisal huwa annabiyu sallallahu alayhi wa sallam laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ki gën a rëy ci ki julli di war a roy dara taxul julli di alku tey lu dul ro lak ñàkk roy bi ñu ñàkk roy yonent bi alayhi salaatu wasalaam loolu rek moo ñu roy adduna bi yëpp laay wax nag baax na mbokk yi bu fekkoon ne tey jullit yi ñu ngi roy yonent bi alayhi salaatu wasalaam comme ni ko saxaaba yi roye woon kon jullit bi ñu àl ko teg waaye lan moo nu alak mooy ñàkk roy yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñàkk koo def kilifa nangu mu nekk suñu kilifa ci lenn du ma wax lépp lenn ci jaamu yàlla ñu lànk leneen li waaye ci mbirum àdduna yonent bi bokkul tey laay mujjee waxtaan ak benn waay ci inspection bu géejawaay ñuy waxtaan ci wàllu diine mu ne ma kon yéen da ngeen a bëgg Sénégal ñu def ko dëkku charia loolu war leen koo ñaan sax boobu leen ko fay bëgg fii sax yéen mu ne yéen boobu seen bopp mu leen demoon Sénégal ndax dañ fee waxtaan charia yéen da ngeen war a wax déedéet xam ngeen charia baaxul tey ma ne ko tuubal wax ji tuubal wax ji balaa ñuy continuer waxtaan da ngay tuub danga naan tuub naa ba pare parce que instant bi génn nga ci l'islam mu ne ma ah man instant bi nekk too jullit waaw loolu mooy suñu problème nag mun a ñoroy yonent bi ci lenn ci suñu jaamu yàlla lenn laay wax de lenn lenn du ma wax sax lépp parce que yenn yooyu sax nga xam ne nangu nañ cee roy yonent bi lu tuuti la ci wàllu adduna nag moom nangu ñu roy yonent bi léegi nag xool leen saxaaba yi nangu woon roy yonent bi ci seen adduna ak seen alaxira ñoom seen mbir nu mu demee dañoo dañoo mucc dañoo am jàmm te ñun benn royukaay lañ am muy yonent bi alayhi salaatu parce que yàlla moom dong la wax nañ ko rek wala am na ci alquran kenn ku yàlla na xooleen laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana aaya boobu ku ko moom wa in tutiuhu tahtadu su ngeen ko toppee jub aaya boobu kan la ya ayuha alladina amanu la tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasul wattaqu llah inna allaha samiun alim aaya kan la dee yéen ñi gëm yàlla bu leen jiitu yàlla ak yonent bi nekk leen ci ginnaaw yàlla ak yonent kooku kan la ban yonent la falyaxzari allazina yuxaalifuna an amrihi an tusibuhum fitna aw yusibuhum azabun alim mooy ci ndiku leen bu wuteeg yonent bi bu ngeen wuteeg yonent bi ma teg leen buggal aduna alaxira ma lakk leen kooku ban yonent la Muhammad atiku llah wa atiku rasul ban yonent la Muhammad topp leen yàllaa ko yonent bi saxaaba yi dañoo toppoon yonent bi ba ni muy lekkee dañ ko doon toppandoo ci lekk di ko toppandoo ci ni muy naanee di ko toppandoo ci ni muy soloo di ko toppandoo ci ni mu tëddee di ko toppandoo ci ni muy waxee di ko toppandoo ci lépp bàyyiwuñu dara mu nekk bu ne benn bu nekk mën nañ laa indil misaal ci saxaaba bi nga xam ne doon na ko toppandoo yonent bi alayhi salaatu wa salaam lépp bàyyiwuñu dara ñun nag ñu bëgg a séparer bëgg lii bàyyi lii nominu bi baad wa nakfuru bi baad ñu gëm lii bàyyi lii yàlla wax na ci suratu baqara afa tuminuuna bi baadil kitaab wa takfuruuna bi baad da ngeen a bëgg a gëm li bàyyi lii ñu ne waaw mu ne fama jazaau man yafalu zalika minkum illa xizzun fi lxayaati dunia wa yowma alqiyamati yuradduuna ila asdati alazab wa ma allahu bi gafilin amma taamaluun su ngeen gëmee li bàyyi lii yàlla mu ne ah na ma buggal leen aduna alaxira bu ngeen deema dugal leen safara ñu loolu lañ def gëm leen ci alxuraan sànni leen bu yàlla ne nañ ngénte nangu nañ te ngénte loolu sax duñ ko defee nu ko yonent doon defee est ce que tey Sénégal nu yàlla yonent bi doon ngénte la ñuy ngénte tontu leen ma tontu bi mooy déedéet est ce que yonent bi daan ngénte de musique ah waaw kon kay wax bu leen nopp leen noppi ni ngeen yonent bi daan takki sëy noonu ngeen di takki sëy yéen seen tey mariage yi ci mbedd yi yor ay oto daf leen ay fulal ñuy pii pii bi ci mbedd yi dem dem salon ñëw teg musique di fukk di musique ba ngoon loolu la yonent bi daan takki sëy waaw waaw kon kay bu leen noppi ma ne ñun dañoo wuteeg yonent bi moo tax yàlla dënnu bëggal lépp ci wàllu jaamu yàlla lépp nag lu mu mën a doon même ci julli yi jàng alquran tudd yàlla xoolal Sénégal ñaata façon laa ilaha illallah moo fi am kër bu nekk ak sa laa ilaha illallah su ma ñemee woon léegi ma def système benn bu nekk ni ngay tuddee yàlla kenn ku nekk am nga fa sa façon tëggin ci laa ilaha illallah laa ilaha illallah benn façon la amul tëggin mais lu tax mooy man nii laa koy waxee ku ci bokkul waroo koo tudd ku bokk ci man nii nga koy waxee amoo droit waxee ko nag même boo koy yàq noonu la même boo koy yàq nag nii la def sa yoon nekk bul ko nuróol ak kee même bu yàq bu ko nuróol ak kee laa ilaha illallah bi wàccoon màkk mooy bi wàcc Sénégal mais la moo tax waa Sénégal am ci fukki façon yu bokkut te adduna bi yëpp fii dañ ngay fekk ñoom ñu am façon fukki façon yooyu lu tax loolu mooy mooy suñu problème mbokk yi gis nga suñu diina ji bu ñu waxul dëgg gi nit ñi duñu xam lan lañ war a def pour jaamu yàlla nit ñi bu ñu leen leeralul jaamu yàlla nit ñi duñu mën a xam kan mooy yàlla nit ñi duñ mun def lan la yàlla bëgg nit ñi buñ deful lu yàlla bëgg ëllëg yow mal xiyaam dañuy am problème ci kanam yàlla loolu dafa war a leer ma ni yonent bi yàlla bi mu ko yónnee yàlla da ko ne leeralal mbir mi leeral ko ba mu leer nañ yonent bi leeral ko ba mu leer keroog ba mu taxee xajatul wada dafa ne ala albalag ma dal naa saaba yi ne naa mu ne allahuma fashhad yàlla seedeel kon mbir mi leer na mais la war a instant yi jaamu yàlla bi lëndëm la war a jaamu yàlla bi am ay tilim tilim lu tax nit ñi astaghfirullah sax mënuñu ko wax astaghfirullah saafirullah saafirullah lan mooy saafirullah lu tax nit ñi mënuñu wax sax laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah lii laa ilaha illa allah subhanallah sax nit ñi dem nañ ba mën ko ñëw subhanallah subhanallah loolu amul ci islam saafirulaay amul ci lislaam laa ilaaha illallaah amul ci lislaam salaamaaleykum amul ci lislaam lu tax parce que leeraluñ nit ñi li ñu war a wax te numéro téléphone fi mu nekk nii ku ñu ko jox doo faussé numéro parce que xam nga boo faussé numéro ki ngay woo du la woo da ngay perte crédit mais ki ngay woo du la woo ñu ñu nangu wax saafirulaay kenn du wax astaghfirullah ndax yaakaar ci parax paraxee diine bi alxuraan bi sax bu ñu koy jàng dañ koy parax paraxee lépp buñ koy def dañ koy parax paraxe loolu nag du ñu jural jàmm yonent bi ko yàlla di jàngal alquran mu bugg a yàkkam bi lu ko yàlla wax laa tuxarrik bihi lisaanaka li taajala bihi inna alayna jam'ahu wa qur'ana fa ida qara'naahu fattabi qur'an mu yàkkamti neel tekk man yàlla maa la koy jàngal su ma la ko jàngalee dootoo ko fàtte te su ma la ko jàngalee na nga topp ni ma la ko jàngale yàlla Muhammad da doon waxal de ah bi yeneen di pare di ko jàngal saxaaba yi leen ko jàngal jàngal bu leer ba pare ne leen attention rubba qaari'ul qur'an wal qur'an yal'anuhu am na koy jàng alquran alquran nan ko su bokkun ma la yàlla na mu yàlla musul ci yow kon na ngeen def ndànk kon suñu diine bi mbokk yi ginnaaw bu ñu xamee ne muhammad mooy suñu royukaay yi wa a'zamu misaalin ba'da rasul sallallahu alayhi wa sallam ar rusul wa anbiya ginnaaw yonent yàlla muhammad alayhi salatu salaam mu nekk suñu royukaay yeneen yonent yi ak ñi yàlla yónni ñoo ci tew moo tax bu ñu la laajee kaw suuf bi fi gën a baax waxal yonent bi suñ la nekku ci tegu waxal yonent yi suñ la nekku ci tegu waxal saxaaba yi saxaaba yi li ñuy baax baax yonent yi ñoo leen gën a baax yonent yi muhammad moo leen gën a baax alquran ñaar fukki yonent ak juróom la ci yàlla wax juróom ñi yàlla génnewaat juróom ñu nekk ulul azmi ulul azmi yàlla génne ci kenn muy muhammad kon ginnaaw yonent yàlla muhammad alayhi salatu salaam suñu royukaay mooy yonent yi alayhimu salaam yooyu suñu royukaay ñoom Muusa ñoom Isa ñoom Yunus ñoom Yuusuf ñoom ñooy suñu royukaay te kenn ku nekk boo jàngee histoire bi nga xam ne kii li tax yàlla ne nag ginnaaw sa yonent xool ko di nga ci xam loolu kon doomu ndey yàlla tabaraka wa taala ginnaaw yonent yi bu ñu demee saxaaba yi yàlla mun nañ ñu roy nit ñu baax ñu ak saxaaba yi saxaabatu kiraam lana fi saalihiina wa saxaaba alkiraam qudwa wa masal lakin yaatuuna baada rusul wal anbiya wa lidalika jaa fi lxadisi saxix wallahi ma wati al ardu baada al anbiya xayr min abi bakr ginnaaw yonent yi bu ñu demee yoon yàlla muhammad bu demee yonent yi dem ak nit ñu baax ñi ak sahaaba yi loolu yonent yàlla muhammad alayhi salatu wasalaam moom moo ñu ko wax ci hadis nee na ginnaaw yonent yi sahaaba yi ñoo ci tegu ak ñu baax loolu fan la ko wax ci benn hadis bu mu ne giñ naa ci yàlla ku giñ moom yonent mu ne kaw suuf si ginnaaw yonent yi ku gën aboubacar doxu fi li lay wan ne nit ñi leeruñu leen diine wax naa ko keroog fii dama nekk ci benn place bu mel nii di def waxtaan bi ma paree benn waaye ne ma damaa dégg nga ni ginnaaw yonent yi sahaaba yee ci dëgg ma ne ko waaw mu ne sunu mag ñi nekk fii na ko leen bëgg dugal allahu akbar ma xam ne kuréel a ngi nii ma ne ko sunu mag ñi imam malik sax moo leen gën te imam malik bi sahaaba na sénégal ci ngirum malik lañ nekk wala ah waaw bu leen malik gënuloon bu nekk ci ngirum kon jaruma lay tontu loolu doy na kon loolu li ko waral mooy farfarloo ak ñàkk a jàng nit dina jël Aboubacar Sadiq naan keneen moo ko gën yonent bi nee na kaw suuf ku gën Aboubacar doxu bi kon Aboubacar yonent ne buñ jëloon imaanu adduna bi yëpp teg ci balance jël imaanu Aboubacar teg ci balance imaanu Aboubacar noonu la kon Ousmane ni mu baaxee malaaka yàlla yi sax dañ ko rus ku mel noonu mën nañu ko am xoola Omar yonent bi ne na bu yonent doon ñëw sama ginnaaw Omar lay nekk law kaana nabiyun baadi la kaana Omar ali moom moom lu ngeen wax ana madinatul ilmi wal ali baabuha ñu ne ku gëm yàlla ku gëm jullit bu nekk boo dee ba dekk sa ngëm yàlla dina yokk ali mu ne ba mu des man man li ma doon gëm gëm naa ko ba pare jeex kon incha allah ñu yem fii dars bi ba àll ba bii di ñëw salaamaaleykum
waa ji duuraat yeneen ñaar rakk mu ne ko julli julli woo waa ji ne ko lii laa mën mu ne ko depuis ñaata at ngay def lii mu ne ko ñeent fukki at a ngi nii nii laay def mu ne ko wallahi ci biir ñeent fukki at yi boo ci deewoon safara nga jëm parce que julli woo léegi nag nañ xool suñu bopp tey te ñooñu kat ñooñu tànn ñi parce que ñooñu ñu ngi koy jéem a def am na joo xam ne ci ñu parewuñu pour julli ñooñu dañoo pareegul amuñu jot dem stade fecci dem sorti toog ci grand place di damier dem ci terrain football yi dem ci simbi yi dem ci xumbal yi moo leen gënal ñu taxaw jox yàlla ñaari ràkk seen kanam seen jë iñaane nañ ko yàlla ba buñ doon fakkastalu dañuy jaaxaan ne du ñu dëpp parce que dañoo iñaane yàlla seen jë tara muslimun laa yusalli abadan ab julli la waaye du julli kenn mun ko fexe ba mu julli da ngay dëkk ak ay jullit yu dul julli te borom bi subhanahu wa taala mu nettali ci alquran am na ñuy julli safara la leen jëme te ñu ngi julli fa waylun lil musallin alladina hum an salaatihim saahuun yeneen bi nee na ci biir safara am na benn xur wa fa nekk xóot na xóotaay boo xam ne buñ ci sànnee nit wala ñu sànni ci dara